wa tabaarakallah Cheikh Omar Niang ñi ngi ñaan yàlla yàlla sàmm la aar la ñi ngi tatagal mboolem gan yi nga xam ne teew nañ ci gàmm gi ñu jógee Mauritanie jógee Nigeria Mali Burkina Faso Togo gaana ak Amérique France Allemagne gan yi nga xam ne jóge nañ ci réew yëpp ñu ngi ñu tatagal bu baax a baax di leen wax na leen ahlan wa marhaban bikum fi madinati Cheikh di tatagal doom ci kër gi di taalibe muy sëriñ bay caam ñu ngi koy tataxal bu baax di rafetal di di ko wax na ko ahlan wa marhaban bikum ci Medina bàyyi sa kër sa barab di ko ñaanal yàlla yàlla may ko tawfiix ñu ngi tatagal mboolem gan yi nga xam ne teew nañ fi pour ñu bañ a guddal rek microphone bi dañ koy daal di toxal rek ci xalifatu saaxibul fayda Mawlana Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahim Niass mu defal ñu taniya bismillah من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل مطهر تركب السفينة وقد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 wa annahu xayru xalqillaahi kullihim man za allazi ma saa qat wa man lahu lxusna faqat muhammadul haadi alladi alayhi jibrilu habat muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquuti bayna alxajar allahuma salli ala man fatixiyatuhu li badii al ijaadi baraatu listiqlaal wa man xaatimiyatuhu baraatu lmuxtami walkamaal allahuma salli wa sallim ala baxri anwaarika wa madani asraarika wa lisaani xujjatika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 يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه إنما كن منهم فلي بحبهم عز وجاء فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سواك تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها مؤملي ربنا صل على خير الأنام ممن على على السماوات العلا بإذن ربي العلي تهنئة ربيعي بمدحتي الشفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها أهلا بشهر المولد شهر العلا والسدد شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول ربيعي بمن أبي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها أطخ السميع الربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل خاطب معضل يا ربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها محمد بشهر الفرح شهر ذهاب الترح وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل يا ربيعي بمدحتي شب الضغير بديعي شهر الفلاح والسرور سار به ساد دهور موشح بين شهور متوج مكلل بمنطق البديع اهلا بشهر الفاتحين إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحاز خاتم الملل ثنيت ربيعي بمدحتي شفيعي أهلا بشهر الخاتم شهر النبي القاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول تهنئة وديعي بمدحني صديعي منطق لا تبيعي أهلا بشهر الناصري للحق شهر الأمري بالعرف شهر الظاهري بكل واصف أكمل تهنئة وديعي بمدحني صديعي منطق لا تبيعي أهلا بالشهر الهادي لمنهجي الرشادي وقائد أحادي إلى الطريق الأمثل تهنئة ربيعي بمدحتي شفيعي بالمنطق الأبدي أهلا بشهر سيدي لأحمر وأسودي من حاز السبق السددي يوم اعتداء الرسل تهنئة ربيعي لمن عطي شفيعي بالمطلب منيعي أبغي بها مؤملي قد كفاها كلها أعباءها وكلها بقوله أنا لها عند اشتداد الوجل جميعك ربيع بمدحتي صبيعي بالمنطق إلى بديعي أخذي بها فيا لها من خطة jawaabuhu fi lxutta min rabbihi sal tuta washfa ladayna tuqbal rabbi bimadhati shafi bimantiqi lbadi abghab ya muhammadi mustafa safati kulli mustafa wa xayri abdin qad safa min malakin aw mursalin rabbi بمدحتي شفيع بمنطق البديع أغلب يا محمد شر خير الخلق شر جميل الخلق شر عظيم الخلق في المحكم المنزل تهنئة ربي بمدحتي شفيع بمنطق البديع أغلب يا محمد الذي أسره إلهه واختاره من حبه خيره إن انقضاء الأجل كان يا ربي بمدحتي الشفي بمنطق البديع أبقى بها محمد شهر الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط عليه جبريل هبط بكل نور معتلي يا ربي بمدحته شبي بمنطق البديع أبغى بها مؤملي الاثنى عشر فيه ويومه الأغر وطيب ذلك سحر ونور أفقه انجلي يا ربي بمدحتي شغي بمنطق البديع أبغي بها محمد بكل ما ظهر من خالق يعي الذكر به كرفع البصر إلى مقامه العلي ربي بمدحتي شبي بمنطق البديع أبغي بها محمد ما رأته من عجب أمينة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهل تأمية ربي لمدحة الشفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي لا الزهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بالصنم المجدل تأمية ربي فتحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها محمد البحار وجنتي الأنهار من أجلي والنار قد طفئت من خجلي أن يا ربي بمدحة الشفيع بمنطق البديع اغلب يا محمد في نكدي لرميها برصدي وعزلها عن مقعدي من أجل خير الرسل تهنئة ربي بمدحة الشفيع بمنطق البديع ابغي يا محمد شيطاني جرى عظيم الشأن من أوضح البرهان لعظم ما به ابتلي أن ربي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي ناذ الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل أن ربي لمدحتي الشبيب بمنطق البديع أبغي يا محمد بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل في المولود في محل زحلي ثانية ربي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغي يا محمد أبيع الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إلهه في الأزل أن يتاربي بمدحة الشفيع بمنطق البديع أم بها مؤمل بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من يده المبجل يا ربي بمدحتي شفي بمنطق البديع ابغي بها محمد من سمه محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي أن يدار بي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها محمد الحمد الأولينا له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل أن يدار بي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي لن بيوم اثنين مولد سان اثنين نبعث سر الكون مقدمه المبجل أن يأتى ربي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي شهر العجم إبريل شهر الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسلين دنيتها ربي بمدحة شفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملة بيوم صار عشرين واستنار لمن حوى الفخر غرفة من منزلي دانية ربي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغى بها مؤملي من بشهر النيسان مولد خير إنسان قدوة أهل الإحسان والكامل المكمل دانية ربي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغى بها مؤملي تمتي لآلي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل ثانية ربي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي ثانية الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها محمد ثانية ربي بمدحة الشفيع بمنطق البديع أبغي بها محمد أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي ثانية ربي مدحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي بالحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل أن يتارمي بمدحتي شفي بمنطق البديع أبغي بها مؤملي لنا ولي ونصرا حفيا لا نختشي غويا بجاه عبدك العلي ثانية ربي بمدحتي شفي بمنطق الأبدي أبغي بها محمد صلى الله وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه الإله من أبد بأزله ثانية ربي بمدحتي سفي بمنطق البدي أبغض يا محمد آله وصحبه وزوجه آمين وكل آل حبه مع السلام الأكمل تهنئة ربي بمدحتي سفي بمنطق البدي أبغض يا محمد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 bési teraanga bii nga xam ne. ci bési teraanga bii nga xam ne. ci la borom teraanga juddu. nga xam ne ku xamati teraanga rek foofa nga baxee ko mooy cosaani teraanga mooy cosaani teraanga ndax teraanga li ci gën a màgg mooy nit ku teddee xam-xam te xam-xam njëkk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne amoon na itam dafa tëju woon ci ay ruq rek muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw tasaare xam-xam gone mag jigéen góor ñépp jot ko ñépp jot xam-xam kàngam yoo xam ne. nekk ci nag di ay kàngam yoo xam ne. dara réeru leen ci xam-xam. dara réeru ci xam-xam. xam-xami kaw ak xam-xami suuf xam-xami géej yi. xam-xami. ndundat yi. lépp. boo demee. xam-xam la yoo xam ne. ci barkeb yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ballee te nag ci mboolem mbindeef yi ñi ko gëm ak ñi ko gëmut yépp yonent rek mooy jum bi nga xam ne ci la ñépp di gindeekoo bokk na ci teraanga nit yëg ci boppam ne am na liberté ne moom nit ki am na liberté. am na kattani tànn. am na kattani tànn. na kattani bàyyi. am na kattani bàyyi. am na kattani bëgg. am na kattani bañ. am na kattani nangu. am na kattani weddi. yooyu yëpp mu ngi booloo ci doomu aadama bi. yàlla moo ko ko may. waaye ku ñu ubbil bunt yooyu ba nga xam maqaama yooyu yépp barkeb yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo la ko may bu ñu gindee koo ba xam diggante nit ki ak nit kii di moromam li war ci seen diggante ci teraanga li war ci seen diggante ci teraanga mënta nekk nekk jóge ci xam jógee ci xam-xami kese. jógee ci xam-xamu nit kese. jógee ci xam-xami nit kese. ci xam-xam yi yàlla mi bind nit rek. xam li soxla xam li bëgg. xam li nit ki soxla xam li nit ki bëgg. foofa rek la nit ki di xamee moromu nitam. jox ko gëddam jox ko gëddam nag. jox ko cëram. fonk ko. ko. comme ni ko yonent bi waxee. sa morom comme ni nga bëggee sa bopp. nga bëgg sa morom comme yow ni nga bëggee sa bopp. loolu yëpp. teraangay ki juddu guddik tey gii ñuy feetu. ci moom lañ ko xamee sallallahu alayhi ci teraangaam lay amee. ci teraangaam lay amee. yàlla ubbil ñu. yàlla ubbil ñu. buntu xam-xam yu bëree bëri. ne nit ñi jàng leen. ndax yàlla moo leen di xamal lu ngeen xamutoon. ndax yàlla moo leen di xamal lu ngeen xamutoon. moo wax yàlla xamal na doomu aadama loo xam ne xamu ko woon. yàlla xamal na doomu aadama loo xam ne xamut ko woon. ba tey doomu aadamaa ngi xam. ba doomu aadamaa ngi xam-xam ba léegi doom aadamaa ngi am xam-xam. ba léegi doomu aadamaa am xam-xam. ci ay gëstoom loo xam ne. ba léegi doomu aadamaa ngi génnee ci ay gëstoom loo xam ne. ci kaw xam-xam la sukkandiku. nekk ay kéemtaan yoo xam ne waxtu wu génnee rek. nag di ay kéemtaan yoo xam ne waxtu wu rek. nga xam ne kii yàllaa nga xam ne dëgg-dëgg jaam bii yàllaa ko teral. yàllaa ko teralee. yàllaa ko teralee. xamal ko loo xam ne keneen xamut ko. xam-xam nag kenn demut ba jeexal ko. xam-xam nag kenn demut ba jeexal ko. ku nekk rek am nga foo ku nekk rek yow am na fu sa niveau yem. moo tax yàlla mu ne. moo ne. foofa kulli zi képp koo xam ne xam na rek am na ku gën a xam. képp koo xam ne xam na rek na ko leer ne am na ku ko gën a xam te xam-xam. fii la em du fii la em. te du fii it la em. du lii rek ngay gëstu bàyyi lii. rek ngay gëstu bàyyi lii. xam-xam yépp ngay gëstu. li ko dalee ci nit ak taxawaayam. dalee ci nit ak taxawaayam. ak li composé nit yépp. lu mu sew sew. boo demee xam-xamam fay dugg di ko gëstu. di ci génne ay xam-xam yoo xam ne ñeneen danañ ko jëriñoo nit kooku nag am gannaaw yonent yàlla muhammad la am sallallahu alayhi wa sallam kon teraangay yonent ci doomu aadama amut dayoo du ñu wax ne nag yonente ko moom waaye yàllaa ko ubbil buntu rek ne ko waxal moom yónnent bi ba pare xamal ko li mu war a nag xamal ko li mu war a wax mu wax lépp ba àgg ci doomu aadama li aju ci doomu aadama yépp mu dajale ko wàccee ko muy benn téere ci moom téere boo xam ne junney at ak nàmma ngi nangama ngi nii téere baa ngi fi junney at ak juróomi téeméeri at téere baa ngi fi te nekkewu fi nag lu may nekkewu fi jàmm ay noon guddeeg bëccëg ñu ngi ci téere bi di wax ñii di wedd téere bi di ñii di sukkandiku ay théorie science. wax leen ma fu ngeen jëlee alquran ji. waaye nag la arab ba waxoon rek. yéen ñii yéen a ngi mel ni béy wuy mbëkk montagne ne daf koy daane. béjjén yaay dem mbaa loos wa damm waaye montagne ba moom mu nga fa rek. ndax alxuraan wax yàlla mi ñu bind la wax yàlla mi ñu bind la li mu wax yépp mu ngi ci doomu aadama li mu wax yépp mu ngi ci jikkoom moom yàlla lim ci wax yépp ak xéewal yi nga xam ne li mu wax yépp mooy xéewal yi nga xam ne yàlla bind na ko pour doomu aadama mu ñeexal ko. ci yonent ci yonent ci lañ xamee. ci lañ xamee. laay ji wax ne. laay ji wax ne. walaqad karramnaa banii aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiilan man yàlla maa bind doomu aadama maa ko teral. man yàlla maa bind doomu aadama bi te maa ko teral. ko waral. man yàlla maa waral doomu aadama bi. man yàlla. man yàlla. lu yàlla bind rek. lu dul yàlla bind rek. lépp lu yàlla bind. lépp lu yàlla bind. doomu aadama tax mu bind ko xam ngeen. ndax mu nekk njëriñam. asamaan sii ngeen di gis. suuf sii ñu taawu. géej géej. te ñun ñëpp xam nañ loola lim ñuy jëriñ lan la moo tax yàlla mu ne man maa leen ko bindal tàggatal leen ko muy buntu gëstu xam-xam yoo xam ne yaatu na lool baykat yi am nañ ci seen wàll ci ñii xalaat ci kaw asamaan seeg biddiw yi am nañ ci seen wàll nekk ni nekk ni géej ñii xalaat ci géej géej jën yeeg nekk ni géej am na xam nañ ci seen wàll am nañ ci seen wàll ñu ngi seet waaye dañuy seet seet rek ba doyal waaye dañuy seet a àgg naa ci xam-xam ne nii la waaye naa ci xam ne nii la loolu sëriñ bi ne jafe na lool gisaguñ ko tey yaakaarut ne danañ ko gis xanaa bés buñ demee àllaaxira yàlla yéex ba jàkkaarloog yëf yi xam-xam bu dëggu yal nañu ci yàlla xàggaleeg jàmm yaa rabbi ñu fekk fa jàmm sëriñ bi na nañu ngi baamu gàmmu duhut bidaa gàmmu du ku nekk am nga lu la neex ci sa xol nit ku nekk am na lu mu bëgg nit ku nekk am na lu koy kontaanloo nit ku nekk am na lu koy kontaan loo mbooloo mu nekk am na lu muy feetu lu ñuy feetu ñun day tànn nañ bu ñu bëggee feetu yonent bi la ñuy feetoo sallallahu alayhi wa ndax lan li mu wax ne yépp defal nañu ko yàlla defal ñu ko ndax moom loolu xam ngeen na jar na feetu te liñ ci amee te liñ ci amee mbooloo yu dajee te mbëggeel rek moo jaar seen diggante te mbëggeel moo jaar ci seen diggante jàmm rek a jaar seen diggante jàmm a jaar ci seen diggante oote jëm ci jàmm rek moo jaar ci seen oote jëm ci jàmm rek moo jaar ci seen diggante gisee daje. ay mbokk yu gëj a gisee daje di saafuwante. ay xarit yu gëj a gisante daje. ay daje. ñun ñëpp ñu waxante asalaamaaleykum. ñun ñëpp ñu waxante asalaamaaleykum. loolu rek. waaye dégloo leen. loolu rek. jar na. ñuy daje di gàmmu. ndax danañ ci xamee loo xam ne bu taxutoon ak gàmmu duñ ko xam sëriñ bi ne gàmmu gi gis na ay nit ñoo xam ne dëgg-dëgg sëriñ bi ne xamutoon ne nit ñu kawee noonu nit ñu amee xam-xam noonu nit ñu dogoo noonu ñëpp ñu pare pour billet pour ñëw Sénégal. pour nu ñu yëkkatee senegal ci coono. nu ñu génnee Sénégal ci ay jafe-jafe. ñu génnee Sénégal ci ay jafe-jafe. ñii ngi defar ay banque yaa ngi defar ay banque ñii yaa ngi defar ay société ñii yaa ngi defar leneen ak leneen. ñii yaa ngi defar leneen ak leneen. loolu yëpp pour. développer seen réew. développer réew. ba mu àgg ci dayo yi nga xam ne. ba àgg ci dayo yi nga xam ne. foofa la war a àgg. ndax nit ñu koy defar day xam nañ fi. nit a koy defar am nañ fi. kon xam-xam yaa ngi fi. borom alal yaa ngi fi. nit ñu kawe ñaa ngi fi ñu bëgg lu ñu bëgg ñu baax ñi toog leen toog leen mu ngi benn tegtal a ngi nii feeñ nee na kilifa gu mag a ngi nii baxee koo Nigéria li ko mën a boole mu toog ak ñun guddi gàmmu gi rek moo ñu mën a boole ñu toog ak moom tey boo gisee nit ñu kawe ñi nga xam ne boo leen bëggee gis da xam ne da nga sonn lool bala nga leen a gis kenn ci ñoom moom mu ngi nii tey toog fii ci suñu biir ñu xam ñu xam li yonent jëriñ mooy mbokkale ñu ñun ñëpp ñu nekk di benn ñu nekk di ay mbokk ñu nekk it di ay mbokk. yu bëree bëri. di ay mbokk yu bëree bari mbooloo mi daje fii. mbooloo mi daje fii. nationalité sëriñ bi ne nationalité bu nekk mu ngi fi jógee ko fu nekk nag. ñëw Sénégal. ndax am nañ. dégg-dégg boo xam ne bu ñëwee Sénégal ut fi yonent yàlla dana leen ko may moom kon am nañ ci gàmmu ngëneel yooyu yëpp xam nañ ci gàmm am nañ ci gàmmu mbaax yooyu yëpp loolu yëpp bon jar na ñu dajee ci gàmmu ngir xamante Sénégal gii yàlla teral na ko ak ay doom ba leen yàlla teralee toxal ci yàlla yi rek. di nga yëg ne teraanga jooju dañ koy toxal ci jaami yàlla yi rek. parce que ñoo tax yàlla may leen ko. Cheikh. Ibrahim Cheikh Ibrahima kenn la ci ñoom. gis ngeen gis ngeen ko gis ngeen góor gu màgg googu gis ngeen ko it lim def. gis ngeen gis ngeen àddina bi fi daje. àddina bi fi daje yépp tey. ba mel ni. ba Sénégal réewu pèlerinage la. réewu pèlerinage fu nit ñi dem di ñaan. fu nit ñiy dem di uti ñaan. yàlla boole na ci senegaal nit ñi di fi ñëw di ut si ay ñaan. loolu mooy Sénégal. yàlla dénk na ko. ay doomam. ngir ñu sàmm ko. yal na leen yàlla may xereñte guñ ko mën a sàmmee guñ ko mën a sàmmee yal na yàlla may leen xam-xam bu ubbeeku bu yaatu yaara bi min yal na yàlla may leen fit min ba dara du leen tiital Sénégal gii réew mu kawe yàlla bëgg na ko guddi gii doy na ci seede ak yeneen guddi yi xew yëpp nuñ koy doyee ñëpp ngir yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sangi mbindeef yi ku bëgg ci yàlla ci moom ngay dem suñ mag ñi jaar nañ fi jébbal nañ seen lépp yonent liggéeyal ko. ci xeetu Sénégal. ci xeeti Sénégal. ba nga xam ne tax na. li français yi bëggoon def sénégalais yi mënuñu. yi bëggoon a def sénégalais yi mënuñu ko. mënuñu ko. ndax doole góor ñu ndaw ñooñu ñuy fekkeet. bëriwul sax. juróomi góor rek lañ. juróomi góor rek lañ. waaye gis ngeen seen liggéey fi mu xàggale Sénégal loolu yépp ñu ngi koy am ci gàmmu gi ba tax moo tax sëriñ bi ne mu ngi leen di ñaan yéen ñii di diriger réew mi pouvoir ak opposition yi ñëpp yéen a yéen ñëpp yéen a xem ndax yéen la population bi di déglu population bu ndaw la buy màgg boo amee sa ndaw muy màgg nag al foog nga ànd ak moom ci xerañte. nga mën koo teg ci yoon woo xam ne mooy yoon wu jub pour moom. ngir mën koo teg ci yoon woo xam ne moo yoon wu jub pour moom. te bañ tarxiis di jaar foo xam ne. te bañ di jaar foo xam ne. mën naa jur ay fitna. mën naa jur ay fitna ëllëg. yal nañu ci yàlla musal. yal na yàlla musal Sénégal ci fitna. yal na yàlla musal Sénégal ci fitna. yal na yàlla musal Sénégal ci balaa yaara bi. yal na yàlla yal na yàlla xamal Sénégal doomi Sénégal ñi jiite politique ci Sénégal. ñi jiite politique ci Sénégal. ñi jiite diine ci Sénégal. ñi jiite diine ci Sénégal. ñi jiite yeneen yëpp. ñi jiite yeneen yëpp. yal na yàlla defal leen tawfiix. liggéey liggéey boo xam ne. xam na ak Sénégal. niroo na ak Sénégal. niroo na ak taarixu Sénégal. niroo na ak sëriñ bi ne buy yàggut dañ ko xoo Makka mu dem uy ji leen ne ba mu demee mu ngi ànd ak ay doomam ñu woo ñu bés bi war a daje. ñu woo leen ci bés bi nga xam ne ca lañ war a daje. kàngaam bo kàngaam yi borom xam-xam yu bëree ngi toog. bañ ñëwee. am kenn ci yi. am kenn ci doomi sëriñ bi. jóg dafay daf may présenté. ne dafay présenté sëriñ bi ñi leen invité woon. ñu ne ko ñun gën a xam ñu ne ko ñun kii nga ñuy présenté ñoo la ko gën a xam toogal. ba mu ko wooyee. bi ñu ko wooyee li tax ñu woo tax ñu woo ko. mooy place bi nga xam ne bàyyam ci. ligue mondiale islam. mooy place bii nga xam ne baayam moo ko amee woon ci ligue mondiale islamique. te ba mu demee ba tey. te ba mu demee ba fi vide. place baa kenn nekkut ci. kenn nekkut ñu bëri ut nañ ko sax. ñu bëri ut nañ ko sax. waaye place bi daf nekk rek. waaye place bi daf fee nekk te yëg nañ. te yëg nañ. na ñàkk a nekk place ñàkk nekk nit ci place bii. na ñàkk nekk ci place bii. indil nañu vidde bu mag a mag a mag. fa nga xam ne fi liggéey ligue war a àgg ci Afrique sax àggu fa. fi liggéey mondial war a àgg ci Afrique sax àggut fa. moo tax dañ laa woo. moo tax dañ laa woo. sëriñ bi sa chaise bàyyi ngi nii toogal wuutu ko ci. ñu ngi lay ñaan. boo demee. boo demee. li nga mun ci samp. li nga mun ci samp. li nga ci samp. ci taxawal. li nga ci taxawal. ñu ngi ci sa gannaaw. ci sa gannaaw. bon nag loolu. bon nag loolu. la Sénégal kawe. la Sénégal kawe. kon Sénégal googu buñ ko sëriñ bi mu ne buñ ko yàq. senegal googu sëriñ bi mu ne buñ ko lakk. ci ay xuloo yoo xam ne jarut ko. ci ay xuloo yoo xam ne jarut ko. ndax boo ko lakkee. boo lakkee sa réew mii. ana fooy dëkkati yow. ana yow foo jëm. nañ téye suñu réew nañ ko garde nañu garde suñu réew mi ak xereñte nañu garde suñu réew mii ak xam-xam nañu ko garde ak bëggante ak bëggante nañu garde suñu réew mii bañ a jamante ci ay wax bañ a jamante ci ay wax di sànnixante ay wax yoo xam ne dafay delloo nit gannaaw rek waaye du ko avancé loo ndax ay mer rek lay andi fayu rek moo ciy topp. mer bu ñëwee fayu rek moo ciy topp. buñ fi nekkee nag di fayu hante ci suñ biir ñun kese. danañ xam ne defaluñ Sénégal dara. muy pouvoir muy opposition yi. sëriñ bi ne. seetaat leen ak xereñ ni ngeen di liggéeyee. ndax moment bii ñu ndax ci moment bii ñu toll. moment bu doxut moment bu yomb de. ndax euh, ni ma ko waxee sëriñ bi ne ni mu ko waxee ministre bi démb. évolution sociale la. la. dafay ànd ak lu nekk. waaye nag. lu nekk nag. lu mënta të doomu aadama. mënta kon sëriñ bi na nañ bàyyi xel ñi ñu élif. ñi élif nañ bàyyi xel ci ñi ñi élif nañ bàyyi ci topp yi nga xam ne ñoom ñoo leen élif. ñi élif itam nañ bàyyi xel. ñi itam. ñii ut ne dañoo bëgg a élif. ñii dañoo bëgg a élif. ñoom itam nañ bàyyi seen itamit nañ bàyyi seen xel. ba ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm. yal na yàlla dimbale leen yaara bi. yal na yàlla dimbale Sénégal góor jigéen mag ndaw ñiy jàng ak ñi nekk ci armée beek ñi nekk ci administration beek ak ñi dikkagut ñépp yal na leen yàlla may jàmm ndax ñu mën liggéey liggéey bu dal pour avenir bii di ñëw ci suñ kanam suñu sët yi. suñ doom yi suñu sët yi. nekkuñu fi. nekkuñu fi. waaye waruñoo tas Sénégal bu ñëwee duñ fi fekk dara. waaye waruñoo bu ñëwee ëllëg duñ fi fekk dara. commencé ci zéro. ñu commencé ti nag ñoom ñi mujjee ñëw ci zéro. yal nañu ci yàlla musal. sëriñ bi ne ñu ngi leen di ndokkeel beneen yoon. di leen wax marhaban bikum. yal na yàlla nangu suñ tànk yu tedd yi ñu dikkee fii ci barab bi ci guddi gu tedd gii ci barab bii nga xam ne nit ku tedd ku nekk jaar na fi te dara taxut la fee jaar lu dut ut teraanga rek yal na ñu ko yàlla may ñun ñépp sëriñ bi ne ñu ngi ñaanal suñ gouvernement sëriñ bi ne mu ngi ñaanal président Macky sàll yal na ko yàlla wattu sëriñ bi ne mu ngi ñaanal opposition bi yàlla wattu leen bañ leen a tarxisloo utal li nga bëgg a ut kenn aayawu la ko waaye nag yonent ne na booy ut ut ko ci anami rafetal boo rafetalee boo agsee lépp dafay rafet yal nañu yàlla xiir ci loolu daayiman yal nañu yàlla xiir ci loolu yal nañu yàlla dimbale ñu samp suñ Sénégal gi bu baax. sëriñ bi ne mu ngi ndokkeel ci guddi gi. xalif général de Tidiane. xalif général de ñu ngi ndokkeel xalif général de Mouride. ñu ngi ndokkeel mboolem xulafaaw yi. ci bés bii. ndax ñoom itamit boo boo ñu ngay def li ñu war a def ci bés bii. ci feeñal mbëggeelab yonent sallallahu alayhi wa sallam. ci feeñal màggaay ak yonent bi. yal nañu ko yàlla nangul yaa rabbi. wàccee ci ñun barakatu rasulullahi. bismillah uxayi wa uhanni ixwati alqaadimina min موريتانيا وغيرها من البلاد العربية ليشتركوا معنا في هذه الليالي الكريمة في نفوسنا الليالي العظيمة في نفوسنا الليالي التي نحن جميعا نحبها لأجل من ولد في هذه الليلة المباركة وهي وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحضارة nabiyul insaniyati alazima nabiyu almaarifa nabiyul ilmi nabiyul axlaaqi alaaliya nabiyu suluki alrafii nabiyu rahmati li ibaadillahi tabaraka wa taala kama qaala wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin ana ana muhdaatun min indillahi ilaykum fa nahnu bi haadihi almunasaba najtamiu ixtifaalan wa taadiman wa tawqiiran li hada nabii muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa natadarahu ila allahi tabaraka wa taala an yunzila fiina barakaati hada nabii sallallahu alayhi wa sallam wa an yarzuqana sabata ala diinihi eh, imaanan wa amalan wa ilman wa taqwan wa ijtinaaban li kulli ma yashubu xayaata al insaani al muslimi as saaliki ila allahi tabaraka wa taala اجتمعنا كما كنا نجتمع في الأزمنة الماضية احتفالا بهذه الليلة وتعظيما لصاحب هذه الليلة وحبا له وتظاهرا بأننا نحن متعلقون برسول الله ولن نتنازل عن محبة رسول الله ولن نتخلف عن الاحتفاء والاحتفال به صلى الله عليه وسلم لما جعله الله تبارك وتعالى سببا من كراماته وصول لتوصيله إلينا فهو الذي أوصلنا القرآن الكريم بما فيه القرآن من الآيات العظيمة والأخلاق الكريمة والإنسانية الرفيعة التي حقا هو مطلب القرآن في كل البشر ومطلب الرجال العظام أيضا في كل البشر حتى يستطيعوا أن يقيموا عدلا في الأرض وحتى يستطيعوا أن يكونوا ناسا قادرين على qadirina ala tasadduri fi daawati ila allahi tabaraka wa taala fi jamii axwaalihim wa zurufihim kama faalat kama faala abauna wa kama nuxaawilu an nafal wa in lam nastati aqdamahum walakinana ala darbi nasiru nasalu allaha tabaraka wa taala an yataqabala minna wa yataqabala minkum hada alamal alladi la natlubu fihi illa rida allahi tabaraka wa taala alladi amarana بالصلاة على رسول الله وكل هذه الأعمال ليست إلا صورة من صور الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا الله ووفقكم جميعا إلى ما فيه رضا ووفقنا جميعا إلى عمل الخير وخير العمل إنقاذا لبلدنا وإنقاذا لدولة السنغال من التحدر حقا فيما تحدرت فيه جميع البلاد التي خربوا بلادهم min ajli tafahatin laa yaclamuha illa allahu tabaraka wa taala wa wa nuqaddim lakum dayfan kariman azizan jaa alayna nu mu tudd nu mu tudd ah sa xaasim shakiba ah ah hmm? dayfun karimun ismuhu qasim shakiba jaa aydan liyaxtafila maana leylatana hadihi wa naxnu masruruuna wa nastaqbiluhu bi kulli qulubina marhaban bika bayna ahlika wa qawmika wa bayna ahbabika wa ahbabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nasalu llaha tabaraka wa taala an yaktuba laka alxayra wa yaktub laka saadata wa yaktuba laka tawfiqa fi ma anta bi sadadihi kaana allahu maaka nasiran wa muayidan wa muqawiyan xata tasila ila ma turiduna alwusula ilayhi fadlan min allahi tabaraka wa taala wa nicmatan minhu جزاكم الله خيرا حضوركم معنا وشكرا كثيرا جزيلا وشكرا aca ana waa Ibrahima ngeen bàyyi yoon bi ndax baaba mën a wàcc baaba Lamine agsi na léegi ñu bàyyi yoon bi pour mu mën a yéeg Ibrahima ngeen gunge baaba ak Hamziya bi bismillah إله إلا الله illallah سيدنا وللخلق رحمة وصفاء يا ربنا وسلم هو للخلق رحمة وصفاء na ñëpp toog te dégloo dañ fay am gan goo xam ne dafa jógee Nigeria war a delluwaat léegi ci kanam dañuy jox ki mu ànd ak muy Tidjani Sané Ewolu mu présenté ko mu sànni ay kàddu ñu yewi ko mu dem fu ko defee ñu continuer programme bi sëriñ bi yàlla ji mi ngi wàccee yërmaaneem ci bés bu tedd bu màgg bi ñi ngi ñaan rek bu dee ndox mi day wàcc na wàcc te bu mu ci barkeeb jëmm ji toog di Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahim Niass ñu ngi koy tatagal di ko màggal di ko wàcce wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla fan wu gudd wu ànd ak wér di ñaanal képp koo xam ne teew nga fii xaaja boo fi indi rek yàlla ko yàlla faj ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala ñi ngi tatagal gan yi fi ñëw yëpp di tatagal Pape Demba bi tey agsi na léegi mook délégation bi nga xam ne mi ngi ànd ak ñoom ñu ngi leen ñu tatagal kon nag dañuy jox microphone bi sa Tidiane Sané Awal mu sànni ay kàddu présenté gan gi ñu jox ko microphone bi aoudu billahi min alsheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim Ah, gan gi